الحمد لله رب العالمين تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا شهدت بوحدانيته وخضعت لعظمته عظام المخلوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم إنه حليما غفورا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حقا قام بها القلب صدقا وأفصح بها اللسان نطقا واستقامت لها الجوارح وخضعت لها الأبدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين من استجاب لدعوته رحم ومن استكبر عنها حرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم عباد الله اعلموا أن الله لا يرضى عملا ليس معه إيمان بها بهما يدرك العبد الفوز وينال الرحمة قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi borom bindeef yi yàlla mu kaayu màgg mi yàlla mi yelloowul ñu koy utal njaboot wala ñu koy askanale doom yàlla mi xam-xamam feek lépp àdduna yàlla suñu borom boobu de ñu ngi koy seedeel ak kennam di toroxlu di wàccee suñu jëmm yi ci kanamam moom borom bi subhanahu wa taala mi wéetul ci nguuram moom mi lépp lu nekk ci kaw àdduna muy asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak lu nekk ci diggante bi di xëy dul sabbaal walakin ñun ñoo dul xam wala ñun ñoo dul dégg ni ñuy sàbbale suñu borom subhanahu wa taala allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ñu ngi seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu ko bokkaale ak kenn muy seede bu war a dëggu ci suñu xol yi di seede bu war a sax ci suñu làmmiñ yi ñu ko tudd muy seede bu suñu jëmm yi war di wommatu saa su nekk di ko dëggal di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànnee fam la yàlla moo ko yónni muy yërmane xeet wi képp ku wuysi ci wooteem bi moom sallallahu alayhi wa sallam waxu de mooy si texe waaye képp ku wan ginnaaw lii di wooteem bi moom alayhi salatu wasalaam kooku de mooy ki sànq yàlla ci yàlla musal yàlla ñu yàlla fayal moom sallallahu alayhi wa sallam moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njuubam di rafetal ba ba allahu subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ñaar muy ragal yàlla ak gëm yàlla muy ñaari jëf yu mag yoo xame ni amul lu doomu aadama bi di jëf bu laluwul ci ñaar yi yàlla di ko yëkkati jëf yëpp yàlla mu ngi koy nangu ci gëm yàlla ak di ko ragal moom la yàlla jox ci alquran mu ni wa man yu'min billah képp ku gëm yàlla wa ya'mal salihan tey jëf jëf ju rafet yàlla mu ni yudxiluhu jannat man yàlla dinaa ko dugal fi aljanna yàlla ko yàlla defal aljanna aljanna di nga xamante ne yàlla mu ni tajri min tahtiha al anhar ma ngay daw ci suufu aljanna lépp xéewal xaalidiina fiiha te foofu mooy dund gu éternel ga mooy dund ga ñuy sax yàlla ñu ci yàlla dugal allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mbokk yi ci yàlla lii di weeru koor de muy weeru màgg bi dem na àndoon ak ay guddi ak i bëccëg yu tedd yu mag ci ab jullit ñu dundal ko ba mu jeex tàkk weeru koor woowu mbokk yi bàyyi ñu ginnaaw lu dul ay fàttali téere jëf lañ ci doon jëf lem nañ ko ba mu jeex diital ko suñu kanam xëy nañ koy gisaat yawmal qiyaamati ba ñuy jébbal suñuy téere jëf yàlla nañ ci fekk lépp luñ ci jëfoon borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ko waaye yàlla nañ ci fekk lépp loo xamante ni defoon nañ ko ci ay bàkkaar yàlla effacer ñu ko moom set wecc mbokk yi ci yàlla weeru koor de ñëw na jàngal ñu lu bëri ba dem mu bokk ci lam ñu jàngaloon muy ak muñ yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nag dafa dig ñi nga xamante ni mooy ñuy muñ muñoon seen bakkan yi taxaw lépp loo xamante ni mbirum jaamu yàlla la ñu jaayante ba matal ko waaye muñoon tamit seen bakkan yi ci lépp lu yàlla tere ñu bàyyi ko yàlla mu ni inni jazaytumul yawma bima sabaru annahum humul faizun li ma leen di fay ëllëg yawmal qiyaamati mooy al fawz ak texe texe goo xamante ni moom borom subhanahu wa taala daf ñuy gërëm ci nangu bi nga xamante ni nangu nañ ko lépp luñ ko doon jaamu yàlla ñu yàlla nangul allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مكي جنا بن سندا يا سبحانه وتعالى بجلد وارد سلم سيرتي صلى الله عليه وسلم ñu dénk ak suñu bopp dina dénk kàddu borom subhanahu wa taala mooy ragal ko dañu xam ni ñun doomu aadama yi ñun nii la yàlla dénk suuf al insan mooy xalifatullahi fil ard yàlla jël lépp loo xamante ni jumtukaay la ko doomu aadama soxla ci kaw suuf mu defar ko mat sëkk wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha xéwal yàlla bi ñu ko doon nettali duñ fi jógee duñ ko mën a matal yàlla mu ne nag wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha lii ma leen defal ñëpp boog ci kaw suuf bu leen ko yàq mukk ginnaaw ma leen ko defaree ba pare li ngeen koy njëkk a defaree nag mooy ngeen bommatu ci lii ma wàccee ci yéen muy alquranul karim mooy fa ma waxe géen te ngeen xam ni yéen ñëpp ay mbokk ngeen innamal muminuuna ixwa yàlla moo ni yéen ñëpp ay mbokk ngeen te mbokkoo gi li tax muy dëggu ci yéen mooy mbokk goo xamante mbokk ragal yàlla ma ko sax yàlla mu ne fa aslihu bayna axawaykum da ngeen rafetal mbokk bi nga xamante ni moo dox seen biir mbokkoo gook mbokk yi ngir mu jëmme ngir mu rafet foofu mu am ci lu mu lal li njëkk ci li mbokkoo gi ragal yàlla war a lal di dëggoo mooy al islah fil aqida mooy ñu fexe ba suñu intérieur ñu defar ko defar ko ci pas-pas boo xamante ni pas-pasu lépp lu ñuy def mu tudd jaamu yàlla ñu def ko te yàlla kese tax loolu la yàlla di nangoo lépp loo xamante ni moom lañ ko jëfal te yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci yërmandeem nañu wàccal ay téere wàcc ñu ay yonent yu ñu ko firi muy wa maa nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin faman asdaqa wa asdah fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun yàlla mu ni maa leen wàcceel ay téere wàcceel leen ay yonent yonent yoo xamante ne dañ leen di bégal ci xéewal yi ma leen di digal ak yowmal qiyaama ci àjjana yàlla ñu defar waaye bi ñu xubbee ci lépp loo xamante ni moo ñu war a yóbbu ci toolu safaan mooy safara yàlla ci yàlla musal yàlla mu ne nag foofu islaax bi bala muy mat seen biir foofu da ngeen defar seen aqiida ñaareel bi mooy ngeen defar ak islaaxu fil ibaadaat lépp lu ngeen di jaamu ci man ngeen jaamu ko te man kese sama jëmm yi tax ñetteel bi mooy al islaaxu fil axlaaq mooy lépp lu ñuy jëf mu tudd jaamu yàlla ki ñu yàlla yónni moom la ñuy wax nañ ko roy ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy seen roykaay moom mooy modèle bi nga xamante ni moom ngeen war a roy ci lépp lu ngeen def ndax moom fa in tutii'uuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek dugg bi àjjana danañ ko defar kon moom la ñu ni nañ ko roy ndax suñu yaay Aysa waxoon na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de yéen nañ tey jikkoom lan mooy jikkoom mu ni kaana xulqul qur'aan jikkoom moo nekkoon alquranul karim mbokk yi ngir suñu islaax ba tey mën a yomb mën a jàppandal faw kenn ku ci nekk defaru ci jikko yi ñu wax kenn ku nekk bu defaroo ci jikko yi kër gi day daal di jar bu kër yi jegee lu génn ci biti day jar ndax pas-pas ba sell na jëf ga rafet na kon lépp lu génn day rafet bu ko defee penc mi day daal di jag penc mi day daal di rafet bu penc mi rafetee jag ñu ni jiite ñun du ñu am jafe-jafe bu ko defee kon dëkk bi ci waxul day daal di jag day wommatu ci li nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala bëgg ci ñun mooy ñu jaamu ko jaamu ko sell bu dëkk bi jagee dëkk yépp buñ defee noonu àdduna di jag bu ko defee mu dëppoo borom bi subhanahu wa taala wax ni wax ni wa ma xalaqtu jinna wal ins illa li ya'budun bindu ma nit ak jinne wàccee nañ ci kaw suuf lu dul ñu jaamu bu ko defee jaamu yàlla bi day matale yàlla ñu yàlla defal dëgg ak topp yàlla ñu jéggal ñu sépp suñu bàkkaar yàlla sàmmal ñu suñu njiitu dëkk njiit yàlla moo koy tànn teg ko qul illahumma maalikal mulk ba yàlla wax man may borom nguur man yàlla tu'til mulka man tashaa man maa jël nguur ma jox ko ku man yàlla say ma soobee nag ma dindi ko su ma ko dindi mu bañ mu ne tan jeexul mun ma fokkati ko jox ko keneen ndax nguur man dong maa ko yàlla mooy subhanahu wa taala nguur nag ku ko yàlla def nga doon ko xamal ne teg na la masuliya bu rëy la wat ca jaam ña nag mooy ñu ñaanal ko yàlla mu woyofal ko boobu yàlla waaye moom it mu doon koo xamante ne kuy nangu lay doon kuy wàccee boppam kuy déglu doomu aadama kon suñu njiitu dëkk suñu njiitu réew suñu président de la république yàlla na ko yàlla sàmm moo ko ñëpp ñu mu àndal di liggéey li ñu woote de mooy jub loolu yàlla ko di ko woote jafe gi jub jafe moo tax yàlla dugal ko suñuy faatiha yi ñuy jàng saa suñuy julli ihdina siraatal mustaqim amul kuy julli doo ko tere jafe gaa tax yàlla nañ ko ñaan kon ndax ne nañu jubal yàlla ñu yàlla jubal jubanti nag moom yàlla moo ko digle fa zakkir la wax fa inna zikra tanfa'u mu'minin fa zakkir mooy da leen fàttali fàttali boo koy wax nag mooy yaa ngi jubbanti ki ngay jubbanti muy buur dafa war a nangu ni doomu aadama dafay juum ak insaan xattaa'uun ñu dañuy juum ay juumkat lañ ku ci nangu juum ñu jubbanti la nga tegu fa nga war a teg bu waa kër gi ñëpp wommatoo ci benn ndigal buy ndigal borom kër gi jub dafay am bu ñu génnee ci penc mi ñun ñëpp womatu ci benn ndigal penc mi day jub ñun ñëpp bu ñu wëlbatikoo ci benn jubal mooy ci jubal penc mi te ci jubal réew mi réew mi day jub waaye day fekk mu doon acte goo xamante ni acte bi islam lay nekk wa man lam yaxkum bi ma anzalallah képp kuy acte woo moo xam ci kër bi moo xam ci penc mi la moo xam ci réew mi ci lu yàlla diglewul tegale ko du jub tegale yàlla lan mooy tegale du jub kon suñu réew dañu woote ci jub jubal jubanti loolu dundin la axlaq la yàlla yàlla yombalal yàlla defar jàppandal suñu jiitu réew yàlla sàmm leen yàlla sàmm tamit ki nga xamante ne moom la yàlla teg suñu gox bii muy le délégué de quartier ak bakasajex sella yàlla ko yàlla defal jàmm amiin donc ñëpp ñu mu àndal na di liggéey ngir ñu am jàmm suñu dëkk bi nii muy góor di jigéen di mag di ndaw yal na yàlla sàmm ñëpp suñuy kilifa yi toog suñu kanam it yal na yàlla sàmmal ñu leen bu ñu demee suñu papa màgget sin la mu yóbbaale bépp kilifa ku nekk ci biir dëkk bi soxna yi yal na yàlla sàmmal ñu leen yàlla tegal ñu leen ñu mu bëgg ñu tegu ko ndax al ummu madarasa ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñiy njëkk a éduqué ñooy ñiy uuf ñoom ñiy yar ñoom ñooy ñiy dalal borom kër yi ci saa bi ñu amee bépp jàpp yal na yàlla defal leen jàmm yàlla sàmm leen suñuy ndawit yal na yàlla sàmmal ñu leen mbokk yi dëkk buy defaru tabax ba ci suuf lay tàmbalee mooy ci ndaw ñi ci éducation bi ci biir kër yi éducation mbokk yi léegi la yàqu bu njëkk xale wala génn romb dem ci école ba nga xam ne kii day jàng kuy jàng mooy kuy defaru ji ci jikko ci xam-xam ndax xale mooy gune mooy lu ne lépp a ngi ci moom gune mooy lu ne ci moom yow mi ñu ko dénk nag lenn lañ la dénk ci moom mooy nga orienté nga orienté ko xale bu la mosaan romb di jàng xam ne kii day jàng waaye léegi xale bu la romb di jàng bi tàmbalee ba sax ca lay jàngal nga yaakaar ni fii ci feccukaay ba la jëm inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naka lañ mën a amee penc mu jàkk te fekk ni xale ba génn wala jàngalekat ba génn ci kër la génn kon nañu xoolaat suñu diggante suñu borom ci njaboot yi yàlla mu ni yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñu gëm ku anfusakum na ngeen di wattoo di fegoo seen bopp ci sawara di julli di woor weeru koor yi di am saxaar di dem màkka di dem ak a ñëw nee na na ngay bëgg yiw boobu ngir ëllëg yàlla fay la aljanna nee na na nga ko dawal sa njaboot gi bàyyi leen xel ci seen éducation yi yàlla na yàlla sàmmal suñuy ndaw di doon ndaw ñoo xamante ne ñuy jëriñ seen bopp ëllëg la ñuy jëriñ seen mbokk ëllëg ñuy jëriñ mbokk umma umma islam bi yëpp ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا الى صراطك الطويل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل عام ونحن بالخير وكل عام ونحن الى الله اقرب كل عام ونحن الى الله اقرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
amiin